Euh, jamono ji ñu ñu yokk waxu yokkute. xalifa mooy li la doon junj léegi diko poser posé wala xaaji question modini tay ñi euh, génné message yoy ak diko véhiculer lan lañ ci djublu lan la ñuy manigancé xan lan lañ bëgg déstabiliser mais yoy yëpp du jall li ci ëpp solo nak moy yokk naag yokul sénégalais bi dem ba jëmmi jamono ba état bi déclarer ni jël nañ décision bi ci walu ndox jël nañ décision ci walu courant jël nañ décision déjà ci wàllu dund nangam nangam su boobaa sénégalais bu demee su le terrain soit que di fay facture am wala di dem marché te gis sentiru ko ci pouvoir d'achat am su boobaa mën na leen contester ne leen promesse beeg li ñu waxoon amul mais quant nag actuellement defaguñu benn engagement jëlaguñu benn décision euh, yooyu yëpp daanaka ay fake news lay doon yoo xamante ne ni mm-hmm. tey il fallait que sénégalais yi gën ci conscience surtout ñi nga xam ne tey lu ci internet bi rek daanaka ñu gëm lu ci internet bi ñu gëm. daanaka mën nañ leen di manipuler de gauche à droite te it après fausse information lañ leen di jox te duñu xam fan lay jógee te ay mal intentionné rek ñoom ñoo koy def dagg fu leen neex angle yu leen neex génne message yu leen arrangé véhiculer ko déjà ñun ñu ngi nii tey lañ jot information que ni El Hadj tey moom moom ci boppam jënd na diwlin yëg ni diwlin wàññeeku na 3000 francs. est-ce que gouvernement bi da ko annoncé annoncé gu ko. lan moo tax mu wàññeeku. noonu la leneen ak leneen. di dem spéculation la. kese. noonu la leneen ak leneen di dem muy càcc gi li ñuy wax buñ ne ëy nga ni bëxër ña daw yow mi daw juboo loolu moo di ni ñi tàmbale daan sàcc di luubal ak di def lu leen neex ak manqué de sérieux ak respect ba waral yenn njëg yi ak dund gi di cher ak lu mu mën a doon di cher dèjà xam nañ ñi fi nekk xam nañ li ñuy fas yéene doxal xam nañ yoon bi ñu jël dañuy bëgg jubal balaa gaay di rëq seen digg di dal seen kaw loolu nag mën na feeñ ci secteur yépp lay feeñ ni mu ciy feeñee nag mooy lu daan cher dana wàññeeku lu daan jafe dana yomb lu daan yeex dana gaaw parce que gars yi rigueur la ñuy demee te dañoo nopp pour liggéey ngir dañu leen a yónni yàkkamti leen te xam nañ li leen di xaar ñëwuñ di paacoo ñëwuñ di séddoo ñëwuñ di nguuru dañoo ñëw pour jaamu soxlay askan wi parce que loolu lañ jaay askan wi tey mu doon lu sincère loo xamante ni xëy na seen i démarche seen i propos seen lépp da koy wane te loolu nga ciy gis loolu nga ciy sentir loolu nag xalifa euh, mënta ànd ak tey damay faral di wax à chaque fois lu baax ku ko bëgg tamit fokk dina metti fokk du yomb fokk mu jafe lu baax du yomb soit que pour ñu defaral ñu dëkk bi man mi daan jaay ci mbedd mi foog ma xam ne fi may jaayee du jaayukaay man mi bëgg ndox mu baax eau potable foog ma xam ni kat dama war a bàyyi yàq dama war a nangam dama war a nangam bañ a yàkkamti déglu ba xam lan lañ ci indi comme propos ba xam ban njëg lañ ñuy wàññil te bañ a yaakam ni te xam ni balaa yàgg mhm. train de vie de l'état bi ñëli daan dundee ak di sàcc suñu xaalis ñoom danañ ko wàññi jël ko def ko fi ñu ko war a def su boobaay yow di nga yëg ni yow ndox wàññeeku na est-ce que sax mënuñu àgg ci jamono yoo xam ne Sénégal waratuñu fay ndox mhm. c'est possible mhm. war nañ fa mën a àgg comme suñu yeneen nataangooy réew yoo xam ne tey dinay àgg su le plan de développement sénégalais bi dinay fay impôt di def li ko war ci réewam di ci participer participation boo xam ni dina dimbali état wam ba lam daan lebi bitim réew étranger yi ñëw di gérer yenn sociétés yi ak contrat yoo xam ne yow la cay génn la ca ëpp ñoom ñoo ko yóbbu dana wàññeeku parce que yow sénégalais bi yaa ngi fay impôt nam la waree ka des ma ngay fay impôt ñoom ñi ngi am as lu ñuy dajale ba suñu waree def investissement lu ca ëpp mën nañ koy financer seen bopp lu ca gën a néew la ñuy dem di ko jéggaani di ko lebi loolu nag mën na àgg ci maam xalifa ñu dem ba ndox wàññeeku pour de la waaj Moussa affaire ndokh bi nga bal ma la gis nga affaire ndokh bi. Euh, médias dañ ci def parce que arnaque bi mu ngi bëgg yag mhm. mu ngi bëgg